ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak daara du la rëcc ci réew mi. ku daan day so ay rob day maquillage buy toppandoo yaa na ko seen yaa na ko ku mu toppandoo imité gis nañ fi Ami Mignon def na fi di imité Viviane soo jëlee Viviane boo xam ne Ami Cole la la doon mu ngi YouTube bi def na fi tam euh, ñëw na fi tam def diggante si mère def si ñoom def ay pause def maquillage def garambu toog takk ay lam def na ko kon man artiste am naa droit soo sama tëni sama tëni man kerees sama yëf comédie kaf reetaan dégg a ñi ba nga ko sore am na ñoo xam na ñoo xam ne tey ni nga gis kontaan reetaan Ouzin Keita lu mu sol lu def lu mu baagante lu mu kii pour comédie bëggee doomu aadama du du lu bon Sénégal nag ñoom Sénégal ñoo xam xam ne Sénégal avancé wu lu doon wutoon wutee Europe ndax a di jënd doomu ne mën a di jënd doomu aadama mhm. xam ne lii at bi def lii day def pour bëgg nit ñi bu jàppee lu nga koy jàppee def ko lu bon pour jàppee ko si lu bon loolu bon man Ouzin Keita ñëw bëggal doomu aadama laa ndax tey jii ma kenn si si àdduna ndax tey jii nit nit nit àddina yaa ngi si baar yi nit safara yaa ngi si jàkk yi nit kenn xam kan la a fan la moo tax kan benn mu gën a gisee kenn si àdduna yàlla su ma mën a nit ñi bàyyi lañ si doomu aadama yi. mais da nga wax léegi am na mignon li mu soloon ak li mu defoon te am na mignon jamono bi mu koy def am na lu ko ci fekkoon am na lu ko ci topp. noonu la dara topp ko si. d' accord coow toppoon na ko ci imaam nañ ci moom am na jafe yow aussi xamoon nga ni kon euh, tey kàddu yi. dina xam nga xam nga xam nga xam nga te imaam yi xamuñu soo bis xamuñu moo tax kan benn mu gën a kenn si àdduna yàlla si moom mën a jugé nit ñi bàyyi leen jugé doomu aadama yi. mais da wax léegi am na mignon euh, li mu soloon ak li mu defoon te ak am na mignon jamono bi mu koy def am na lu ko ci fekkoon am na ko ci topp. non non dara topp ko d' accord coow toppoon na ko ci imaam yi waxoon nañ ci moom am na jafe-jafe yu ci dundoon yow aussi xamoon nga ni kon euh, tey kàddu yi. dina xam nga xam nga xam nga xam te imaam yi xamuñu showbiz xamuñu artiste imaam xam xamuñu showbiz xamuñu artiste imaam yi xamuñu showbiz xamuñu xamaat xam nañu xam julli woor mm-hmm. da yàlla su moom dafa santaane yàlla su yàlla suñu boom dafa santaane doomu adama boo nekkee si àddina bi boo nekkee si àdduna bi boo nekkee si àdduna da def yëpp àdduna nga boole tam bu yàlla suñu borom boo dogalee bu yàlla suma dafa dogal tam julli juróom julli juróomi da koy def jàmm yàlla suñu borom ñaan si yàlla suñu borom tuub jéggalu du tee bu nekkee sa aar li mu ko jar nga def ko ba mu des tam def lu bon boo nga gérer xam nga gérer ma prono xam man xam nga gérer ma prono def ma lu bon daf ma lu ñaaw. waaw dama bëgg ma gérer ma prono kenn bett ma ma def ma ne kenn bett ma ma def na ko si noonu may ko def du ma ko def ne ndax doomu jullit laa. bu la pees ma ba may tudd nan ma raaya xaar kenn dara man nag kenn dara ma gireem ne maa raaya xaar kenn raaya ma raaya xaar wax sama wax sama tur tif di dafa séenu kayita imam bi. imam bi ñaan yuux sama nopp mm-hmm. waaw d'accord euh, ñu gis euh, ci ci biir tenue boobu nga xamante ni sol nga ko mm-hmm. euh, am yenn ci ay sénégalais yu doon posé question di laaj ndax danga monté woon ans monté ans jàmm salaam yow man yàlla suñu borom man ñaar laa am man tey dama am dënn am taat yàlla ma dogal loolu am ñu am na góor ñoo xam yàlla dama bindee loolu ñoo nga yàlla bindee am mm-hmm. ah, am ñu naan sax Ouzin Keita mi handicapé la na handicapé foo am handicapé mooy def loolu li ma yàlla bindee du tax may monté tal pour la may monté as. parce que ni nga ko solee ak forme bi ni mu génnee ak ni ñu ko téwee. waaw ñu bëri dañuy jàpp que ni da nga ko sol mais da nga <laughs> monté waale ans ci biir. monté as aywa Sénégal mënuñu duutal ñu ne yàlla de mosuma monté as noonu yàlla bindee. Mhm. noonu yàlla bindee ñu ne ma yàlla bindee. d'accord attends. waaw nii la ma yàlla bindee ku ku ku nekkul la yàlla bindee nii la ma yàlla bindee. waaw macha allah allah ma baare. macha allah waaw ma ma yaram. ma ma yaram da da da da si man yàlla suñu bopp moo dëgëral. xam nga foo mu góor foo mu jigéen bokkul. waaw mooy loolu. am na solo voilà loolu loolu itam. Euh, monté ans nekk na lu nga xamante ni sénégalais yi dañ ko doon laaj ak anam bi nga bi nga doon cëfar cëfaree. da ma ko si. ma taxaw njare ndëpp dugg si géej woo maam njare wasan pay waroon ku ma làmbaay woora bi dafa fekk sama soor ba fees del weer am ndam ba bënee sa nopp doo mën a jiite kenn promé daf bën noppam raa daf bën noppam te pama na paros mbay li nga bën bi wala kaa def day sol tubb bu dang day day day sol lu na ñàpp lu tax tey pama tàgg ngay jam la woowu promé ne ko li Allah moo tax ci àdduna Sénégal àtte leen dëgg àtte yoon si àdduna tey am na imaam yoo xam ne ñoo ngi takk takk suuf am na imaam yoo xam ne damay wax am na imaam yoo xam ne danga ko toog suuf am am na imaam yoo xam ne waaw non doo dégg damaa ko dégg ma doomu aadama nit dëgg moo ñu te may mujj comprendre euh, comprendre euh, am na imaam yoo xam ne am na euh, dafa dafa am imaam yoo xam ne ñoo ngi toog toog suuf am na imaam yoo xam ne noo ko def lu suñu am na imaam yoo xam ne noo ko def loo xam ne bu ñu ko waxee dëkk bi yëngu am na imaam yoo xam imaam dëgg dëgg dëgg imaam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xam fu mu jëm diine mm-hmm. l'islam julli bu bu bu see boo xamee yow mi nekkoon si dugg du yoon mu woo la yedd la waxtaan na yaw tegal si yoon yàlla sunu Muhammad nanu tuubal jégalu imaam bi xasaa dugg si dugg si si doomu di takk takk suuf di dem si bois di di wër caga ji loolu di imaam d'accord waaw waxmatul kenn nag wax ni euh, jamono dañoo manqué sa kàddu yooyu foog te ko ma xamutama wax loolu xamutama jamono ne manqué mm-hmm. eh, xamutama wax loolu ndax tey jii doomu adama bu ñu gisee Ouzin Keita xam ne Ouzin Keita daf doon ñàkk fay Ouzin Keita day ko day bëgg bu ñu gisee Ouzin Keita def erreur du ne ma sama doom kat li at laa teg ma si yoon bu ma juumee ñu ma wàcc yoon bi ñu woo ma sutura ma ne ma Ouzin Keita bu dafa lii doomu jur nga doom ni ku baax nga waa toog dina xas dina yegg katame man ku ma xas ma xas la waaw. est-ce que kon baa kon da ngay ñaan yàlla suñu borom yàlla bari say baakaar du ma fi nekk naa ba Pombe du woor Pombe wooru jullul. ñu waxtaan day dugg si kër yi jaxase ñi bu dóor pour jaxase ñi ñu indi xaalis indi nanga man dox ma si yooyu. eh koy bu ma am bës bës dëgg tey wax ma indi wax ma dama def émission man weeru koor du ma fi indi fitna du ma fi indi du ma du ma du ma du ma fi jaxase kenn. xam ko mu bëgg boppam parme war ma fii ne ma Ouzin Keita kan saaga Sonko barki Seydina Mohamed du ma woo di fen kan saaga Sonko ma ne ko ma ne ko léegi xam nooy def. da nga njëkk saaga boo saaga pare ma soog a saaga. mu toog ñu toog mu woo ma ne ma mu woo ma ne ma Ouzin Keita amul jox na xaar pour mu def son man yow pour ma mën a ma ne ko ba léegi xam def ma ne ko léegi ma ko léegi man xam nuy def ma ne ko léegi eh, eh, eh, danga may jox xaar ma téye lu la jox ma téye parce que ma xel ñoom studio en noonu ma noonu kon bàyyi ma ne ma ci léegi xam nuy def kan def kan dugg si bi ñu ñu ñu xas waa kii ñu xas waa Sonko. Mhm. man leen ma xasuma kenn ma ne en tout cas ñëpp laa bëgg waan sama xol premier temps bi si nekk. Mhm. daf mën a bëgg ginaaru bañ ay nenam ndax ku bëgg jabar di nga bëgg doom waa dëgg si laay njëkk dëgg dëgg laay wax. Mhm. du lu ma fi nekk naan gis naa yàlla di dëgg suma yàlla fi dëgg bi ku fi dëgg ku fi dëgg dëgg dama koy wax. am naa si droit. ba xeex amee ba xeex amee Sonko ñu xeexoo damaa toog daal damay wax Sonko dama koy nuyu à di wax ko. àdduna bi Sénégal fi nekk Sénégal bi dëkk dina dëkk lislaam dëkk boo xam ne du dëkk fitna mm. ba bu sungo nga tegg sa tànk mm. ndax dangaa am doom am famille boo amee doom am famille kon doo rànk sa doom di xeexloo doom Sénégal yi doo du ñuy ñaa ko wax waaw doo dégg ma la maa ngi ñëw bu nekkee Sonko ma ko dama wax man dëgg moo taw du ma fi nekk di wax wax yi dëmm wala wax toog naa nanga nag du ma ko def mm. seetaan ak kenn eh du ma seet ak kenn kenn dem naa gis naa yàlla gisuma yàlla damaa ne sonko bu nekk lu ñuy wax yaay woote pour ñu ñu xeex bu def loolu ndax sonko na nekk dikk boo xam dëkk lislaam la gaa dëkk bi dëkk fitna ku nekk dangaa am jur doom soxla sa njaboot dangay woo nit ñi boo boo defee boo la gën a méttee nga woo bu neex nga woo Sénégal mun ku mu neex nga génn masse xeex sont ay xeex reyante jamante deret sàkk loolu baaxul si si dëkk bi. kon Sonko li muy wax euh, combat mortel. Ah oui damaa ne damaa ne ba tey déggu fu ma dee damaa ne Sonko bu nekkee moo wax gën leen xeex du yoon laa wax bu nekkee moo ko wax dama bëri bu ma. ko waaw kon du yoon. Mm-hmm. kon du yoon xam nga loolu. Mm-hmm. ndax fii Sénégal du dëkk dëkk boo xam ne rayante fi kenn fi fi amul fi amul guerre. Mm-hmm. fi kenn guerre fi kenn rayante fi kenn ndax ku nekk am na loo xam ne ku nekk sa ndey juraat loolu du yoon. xale ko waaw uy ma waaw loolu du yoon xam nga loolu ndax fi ku ne ba sa ndey mën a pës nooy nooy def foo sa amee doom ba sa ndey am téeméer war sa ndey juróom sa ah, wala sa maam fii nuy juraatee kon kon ñu juraate kon dama dama bëgg mu Sénégal jàmm fi Sénégal xam nga ñun ñan Sénégal yàlla fi yàgg te wax nga bàyyi fitna bu nekk Sonko yaa def fitna bi loolu du yoon man nag dëgg la ndax ba chaque jour saa xee damay damay damay dégg sa kàddu damay dégg si wax say kàddu du ma nag du ma ne du ma xas ndax yàlla suñu bopp mën naa ne ko gërëm président xaw ma kañ la. looloo tax doo ko xas. sama dab ma sama yab day ma na ma Ousseynou Kayta dëkk bi du am kii du am ma ma man naa dépôt la wala du maa dépôt du maa ju. du maa kii nañ waxoon nañ defaraat kii bi ba mu ba waxoon. ah. ah deuxième tour ma leen du am deuxième tour ah. ma leen du am da amul dafa naka dëgg yàlla may kon na man nag sama kër di prier internet yaa ngi fi kon problème bu ne man ànd ma président bu abona ah, damaa bañ président wala anam président day duwul dugg YouTube tubaab nee na preuve dugg YouTube ba mu nekk sama ka di bërëngu ah ba ma demee Pire ba waa Pire diri dugg YouTube nit doomu araba nag du mun a duur mu ne fenn Pawlish Mbaye nit kër si ne fa bëggu kenn parce que fii la xasoon amasaan amul fi sa dof la hmm. kankay lekk usa kankay kankay jay fii fii xaalis mi la su suñu xaalis sax parce que ba mu raab tey bu ànd moom kon dama naan kon ko wax tey mhm. mu ne la Kañu Ndiaye Ousseynou Kañu Ndiaye. Ah, euh, waaw pour mu may leen xaalis. waaw dof la. bëgg man daan man problème bi ma kenn sama xaalis sama aar laay kii. Mm. sama sama sama euh, sama tur bi moom laa utilisé pour lekk si. waaw di tam euh, di nuy tam di wax président tam ma ñaan ko dara. ndax muy waa Grand Yoff seen ndox day. seen ndox foos yi ñi ñaa ngi ci waa Grand Yoff kenn nooyatul waa waa groupe ñame-ñame ñoom ñi maa ngi tudd Epass waa Grand Yoff di wax maa ngi la ñaan te tax bëgg naa lool da naw laa loon dama laa nawloo wax waa Grand Yoff ñoom ñame-ñame président dama bëgg ngeen jàppale seen koñ yi seen dukk yi ngeen jàppaleen sutura leen ngeen jàppaleen sutura pour ngeen defar tali bi ndax Grand Yoff tam mun lekk mun naan ndax seen ndaxu day seet ci mm. maa ngi nuyu afaas di doon ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakar daara du la rëcc ci réew